asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yi yéen ñi mbokkal lislaam yépp fu ab jullit mën na ne ñu ngi leen di nuyu ci turu xalifatu al xalifatul am li la jot di ak ndokkeelam ngoo xam ne matale na ko jullit yépp ndax bis bi ñoo ko bokk ñun jullit ñépp kon bisu mbégte la ci ñun bisu bu ñu war a jokk jokk leen koy mbégte la bu ñu war a jokk bokk la mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jot li kàddu yi nga xam ne moom lañ fiy bëgg a wax rek luñ fi wax rek ci ndigalam lañ ko waxe loolu nag la ci jiitu mooy wax leen solos bis bi rek ak wax leen ndigali yàlla yi ñu tënk ko ndax waxtu euh, tënk ci dafa gàtt ñu wax leen wax li wax wax euh, tënk ñu tënk ndigali yàlla fi ñu mën a yóbbu duñ ko sóoboo ak tere yàlla bi ko bi ko bi ko yàlla bi euh, lu lu ñu yàlla ne baal lu ne la tax mënuñ ko baalu lor rek dina ci kanam jum ñu dawalaat loolu nag li ci ñu njëkki kon solos bis bi solos bis bi mooy na ngeen xam ne li cosaan li yonent bi ci boppam yàlla da ko wax ne su ma awhaynaa ilayka an ittabi millata ibrahim hanifan wa ma kaana minal mushrikiin yonent bi ci boppam yàlla da ne kon toppal ngirum ibrahima mu jub xocc mi mu yoroon ndax moom dara ur ur dala ci dara ci eh, sir della ko wax ne ko maa jaala aleykum fi diini min xarajin millata ibrahima millata abikum ibrahima huwa sammaakumul muslimina min qabl kon jullit bi ñu tudd ibrahima moo moo ko nekk muslim ibrahima moo ñu moo ko tuddee njabootu lislaam gii kon am na cër bu rëy ci yonent moo tax bi mu fi laataa jógee sax mu ne wa awsa biha ibrahima banihi wa yaqubu yaa baniya inna allaha astafa lakum diina fala tamutunna illa wa antum muslimun yéen sama doom yi jébbal dénk naa leen ak yax xoobaag yëpp bu leen faatu te doonu leen jullit kon euh, kon ibrahima mii waral bis bi noonu la moo moom la yàlla ne yonent bi dee ko roy yonent moom nag moo li waral bis bi nag mooy moo waxoon suñu borom ne ko rabbi habli min as-salihin fa bassalnaahu bi xulaamin alim fa lamma balaga mahu sahiya xaala yaa bunayya inni araa fil manaami anni adbahuka mu ne ko fan su mu daal ne ko nag fan surma saa pare doom ji ne ko xaala yaa abati fal maa tuumur sa tajiduni inshaa allahu min assaabiriin fa lamma aslama wa tallahu li jabiin wa naadaynaahu ay yaa ibrahimu qad saddaqta ruya inna kazaalika najzil muhsiniina inna haadaa lahuwa albalaa'u almubiin wa fadaynaahu bi dib'in aziim loolu mooy cosaanu bis bi dafa ñaanoon si borom may ko may ma doom ju baax yàlla may xale bu lewet doom boo xam ne bu leer la alxuraan li muy bari bari baatab xalimun ci ibrahima la ko wax ak doomam inna ibrahima la xalimun awaahun ba noppi doom ji ma ne bi xulaamin xalim lewet dafa jëfe bi bi mu demee ba jot a mën a dox ànd ak moom nag nga xam ne ñenn ñi ne mooy bi mu amee ñaar ñenn ñi bi mu juróom juróom-ñaar ne dama mu ne ko damaa gént ñu di la war laa reen te géntu yonent dëgg la xoolal ba xam yow noo ko gis may naa la nag bàyyi ko may am at moo xam da ko bàyyi muy seet xelam at la ko may mu ne ko bàyyi ifal maa liñ la digal def ko man de insha allah da nga ma fekk may may ma mun fa lamma aslama bi ñu wommatoo ñoom ñaar ñëpp ci ndigalul yàlla watallahu mu dal ko kërëg doole li jibil ci wetu maaro géej bi muy fii ñu daal di koy woo nag wanaa dina kad eh, sadaqta def nga li ma la ina ina ka saalika nasil muslim daa ne bii ixtibaar rek laa ci jubloon ina saalahul balaa'ul mubiin dama doon natt rek ma xam lu mu la jaral wa fadaynaahu mu daal di wax Jibril ne ba maa ngi koy teg ci bëli waaye balaa balaa daw na nga ko wutal am xar nga ne moom bi muy teg jàpp ne doomam lay rey bi mu soo mu gis mu dum xar loolu moo indi tabaski yàlla nag daal ko def ci sunna yoo xam ne bu yonent bi ñëwee Makka falamma xadima rasulullahi almadinata xaala ina laa abdalakum bi asal yawmayni yawmayni xayran minhuma alfitra wal wan naxara rawaahu ahmad wa abu daawud yonent bi ñëwee madina fekk ñu xiitu ci ñaari bis mu ne leen yéen fi am ngeen ñaari bis yu gën yooyu yàlla wattal na leen ko dee leen def xori ak tëbës ki muy seen xiit bu ko defee nag moo tax bi mu ñëwee moom moom yéen bi mu ñëwee madina ba ci déwén sa la sunnaal tëbës foofu la tàmbalee bu ko defee nag ñu xam ne yonent bi jëlee nañ ci jaabir mu nekk ne yonent bi bu saa julli ji buy dëpp yoon wam jaar du bokk ak wam yi jaar kon dañ ne di fàttali loolu isaa kaana yowma xiidin xaalafa tariq te wa bay bayna al masjidi wal bayti huwa huwa ku ne xam ne diggante fi mu doon jëlee ci ngànn fay fay la daa doon bu ne ci fenk jumaa ja wante digganteem ak yonent bi dëkkoon ay mètre waaye bi ñëw day jaar nii ñu def mu jaar nii kon am taarul xaliila moo doxoon ci diggante bi waaye nag mi mi ngi ko doon def ramsiya rek ngir am lañ ko laakin la ramsiya am na lu mu ci dugg kon bo yoon boo boo dee julli ji yoon yi ngay jaar boo defee wër te bokk ak ngay jaar sol lu lu bees teq dañ ko jébbal ina laa yuhibbu yonent bi dañ an yara asara nikmatihi ala ibaadihi jeexee ci xéwale mi yàlla da ko bëgg gis ci nit ñi ci bis yu mel nii bu ko defee ku fi jógee it boo mënee rendel sa bopp wal yali rajulu sabha udhiyati bi yadihi ku mën a rendil sa bopp boo ko defee bu doon eh, jigéen dana rend jigéen dagan na mu rendi gone it dagan na mu rendi c'est un peu na waaw kër yi andi nañ booy rendi war a bismillahi wallahu akbar te paaka bi bañ a teggiku feeg guddi gi dëgg ak ñaari sidit yi nga xam ne ñoo dar guddi gi waaye nanguwuñ ngay rendi ba mu yàgg nga nga bàyyi ni faatu bi daal ñëw jox ma beneen kooku da yàq ak ren ndax ren yi ni ko sariya waxe daa xam ne ak zakaatu xat mu ñu mayisi ni yu maa yu mayisi tamaamal xulqooni wal wadaje wal wadaje yi loolu yëpp da nga ko war a dagg minal muqaddami nga daggee ko ci kanam bilaa rafin xabla tamaami te bu buddee kati baaga fii ak gënoo noonu lañu ñu war a rende ndax boo rendee te waxoo ci wala taakulu mimmaa lam yuzkar smullaahi alayhi fa kuluu mimmaa zukira smullaahi alayhi booy rendi boo yàlla kenn waru koo rendi kenn waru koo lekk bu ko defee nag boo noppee nag bëgg nañ wa jamhu aklin wa sadaqatin wa ihsaayin bëgg nañ nga bëgg nañ nga lekk ci bëgg nañ nga saraxe ci bëgg nañ ci nga joxe ci ihda may may joxe ci addiya ñi nga dellal say dëkkandoo waaye nag ñi nga ñi ñi doo ci joxub ñi nga bokkal diine wa itham kafirin sañu si wa bayhuhu sañu si fee jaay ngënali dara lu bokk ci fëlëf muy eh, derbeek ngënali ci kaw ak lépp suñu ko jaay yaam xari na ngeen xam loolu bu ko dee bu bu say jàllee ngeen xam ne julli boo julli li ko dayalee ci tisbaaru tey ba ci tisbaaru ba ci suba bisum ñeenteel ba da ngaa war di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilimaan bi da ko war a wax ci kaw ilimaan ji bu ko fàttee fi génn bu jàkka ja war na ko def maamam bi noonu saa boo sëlmalee rek nga def allahu akbar allahu akbar allahu akbar bu ko imaam waxee ci kaw ne ñu maamam fàttali ko waaye ñoom it dañ ko war a wax am na yeneen siixa yoo xam ne bu la neexee waxee ko waaye boobu day gudd ci nit ñi mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu bu la neexee nga wax bëgg nañu ku jox bokk bu dee waxtu ku ko jamono laaje war ngaa jokk bokk siyaare eh, sa dëkkandoo yi ndax asillatu wa tasaawuru fil aydayni masruhun fil islam yi lislaam bëgg na ko lool ndax yonent bi dane woon rafetu jikko tasilu man xataxaka wa tanfoox man salamaka wa tuuti man xaramaka rawaahu bayhaqi yonent bi dane woon ki la ki la dof bu nguur ne dalaa dof ci boppam nga jox ko loolu mooy rafetu jikko di jéggal ki la tooñ ki nga xam ne nguur na li yor ni la koy xañ yow nga di ko jox leen loolu sëñ bi wooy na ko ci masalik moom la wax wa minhu xaqul mari amman zalama wa misluhu man xarama wa sillatun li kulli saxsin qataa wal birru aydan fantabi wa tabia sëñ bi neen bokk na ci teggee ne lislaam ku la tooñ ku ne nga jéggal koo xam ne wóor na leen mi ngi lay jiima xañ nga di ko jox yow mbokk mu ne nga jox tey defal njëkk nit ndax yàlla ci boppam daa wax ci alquran aw laay wax ne tudd na ci juróom-ñeent wa'budullaaha wa laa tushriku bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaanan wa bi sil qurbee wal yataamee wal masaakiini wal jeeri sil qurbee wal jeeri junubi was saahibi bil janbi wa min sabiili wa maa yàlla digal na leen ngeen di jaamu yàlla te ko bokkaale dara te topp seen i waajur tey rafetal seen diggante ñoom ba leen leen wax mbas ba leen leen gëdd wala taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa wax na ko ci beneen bopp te ñaari waajur luñ la wax rek ànd na ngay toppatoo bi bisil qurbaa na ngay toppatoo say bopp yëpp ñooñ ñooñu nga war a jox ñooñu la leen digal wal yataamee na ngay toppatoo jirim yëpp miskin yi na nga leen toppatoo ki nga dëkkal tamit sa mbokkum dëkkandoo ci je wala muy sa mbokk ci dara ñaar yi ñu ci doon day ko topp ak dëkkandoo bi nga xam ne jàmbur la mooy moo tax mu ne wal jiiri sil qurbé wal jiiri junub ñaar yi laa la digal nga topp wa mooy ki nga àndal tukki rafiqu fi sëy ki nga fi safari ki nga àndal tukki dangaa war a jokk ci dem di rafetal di ko defal loo xam lu ne ci lu baax wa min sabili doxandéem boo gis wa maa malakat aymanukum ak loo xam ne yaa ko njaboot yàlla kat bëgg kuy inna allaha laa yuhibbu man kaana muxtaalan faxooran yàlla yaar la bëgg maanaam kuy suukaree ak kuy ndab kon nag loolu loolu lañ di loolu loolu jokk bokk googu moom lañ digle jokk jokk ba dëkkandoo it ñu yonent bi dañu man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxiri falaa yu'zi jaarahu ku gëm yàlla gëm alaaxira bu lor sa dëkkandoo kon lépp loo gis delluwaat ak feneen ni ku gëm yàlla ak yonent bi fal yuhsin ilaa jaarihi nay rafetal jëm ci dëkkandoo fii daa wax ne bu ko lor fii mu ne bu ñam ci bañ ko lor deen def lu rafet jëmee ci moom delluwaat wax ne wallaahi laa yoominu wallaahi laa yoominu wallaahi laa yoominu man laa yaamunu jaaruhu bawaa'iqahu wala yadxulul jannata man laa yaamunu jaaruhu bawaa'iqahu loolu mooy yonent bi ne giñ naa ci yàlla ne gëmut giñ naa ci yàlla ne gëmut giñ naa ci yàlla ne gëmut ñu ne ko kan mu ne koo xam ne dëkkandoom muccul ci ay loram dellu wax ne du tàbbi àjjana it koo xam ne ay dëkkandoom muccul ci ay loram kon loolu lu ma ta bàyyi xel delluwaat wax ne yaa aba zar ida tabaxta maraqatan fa aksir bis boo toggatee ak supp wala ñeex na ko def bare baree bari boo noppee nga tànk ca jox nga dendal ndax xegg na leen xëy loolu xanaa mën du mel noonu loolu loolu la yéen ci bëgg jullit ñi mel delluwaat wax ne maasaala ji maasaala yoo maasaala yoo suñu jibri jibril man de jibril dama daa faral di diin ko ba mu yaakaar ne day bëgg a wax ne na nañeen day leen doon nan saa bu ñëwee rek na bu bu leen fàtte dëkkaloo kon nag loolu na yàlla mu dellu wax ne man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsaa lahu fi afarihi falyasil rahimahu képp koo xam ne bëgg nga sa wërsëg di yokk bëgg nga it sa gannaaw nga amu tur wa an yunsaa ay wa an yu aqara lahu fi asarihi al asri rasmu sayid maanaam ki nga xam ne bëgg nga bëgg nga sa gannaaw ñu gën a tudd deel def lu baax ndax bu ëllëgee suñ ne diine moom jamono yam fi ne ngim daa dimbiree bokk yeeg ngim daa dimbiree jaamu soo tur du fay mu delluwaat waxaat ci beneen ak beneen ay siixa yu bënd la tuddee ne man sarraw an yubsata la lahoo fi risqihi wa yunsa lahoo fi aj fi ajalihi beneen boobu daa wax ne bu fekkee da ngaa bëgg sëdd bi yokk na ba tey del del rafetal del rafetal ak euh, jëme ci bopp yi jëme benn addis benn bee mujj rek moo wute wa yunsa lahoo fi ajalihi la wax ci benn bi falyasil rahimahu bu woowaa ne ngay jokk bokk man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yun wa yunsaa lahu fi ajalihi beneen moom daa ne boo bëggee suddi jàpp yokk sëñ sëñ Muntaxa dafa ne boo dee na nga leen wax ne ñëpp nañ maase ci yàlla soogu soogu ci yàlla lépp luñ ne lu baax ñu ne lépp luñ ne lu bana nañ koy daw loolu laa digal taal bi kon nag boo seetoon telee ndigali lislaam yi wal mutaammiru wal mutaammiru fi awaamiri lislaam yi wa nawaahihi yaraaha saata taabahin axlaaqiyin fa huwa laa yuxassisu lil axlaaqi baaban muhaddadan aw mabxasan muhayyanan bal innaka tara al islaama yaxuddu ala makaa ala makaarimi al axlaaq wa yunaffiru wa yunaffiru min masaayi min masaayi al axlaaq fi kaafati al majaalaat misal al majalis الأسري والاقتصادي والسياسي وغير ذلك ونثبت ونستنبط من هذا أن قوام بناء الحياة الإنسانية في الإسلام هو المحور الأخلاقي المستقيم التي التي التي يدور التي تدور حوله عجلة الحياة فإنما يقول الإسلام للمسلم افعل فإنه يهدي إلى مواطن الخير وإنما يقول له لا تفعل ينبهه إلى مصالح الصبر على أساس على أساس أن الحلال بين وأن الحرام بين boo settantelee loolu si mun taxaa wax boo settantelee ndigali lislaam yëpp ak tereem yëpp boo ko xoolee jikko lay jàngale jikko rek loo gis lislaam sànn islaam boo gisee wutalut jikko bunt boo dee yër ci ak ci téere yi téere bépp jikko la booy wutal ko bunt bu ko beral boo xam ne day wax ne booy bëggee jikko rek jéemal ko bunt bi déedéet li lépp lislaam rek jikko kon mooy loolu suñu suñ di ñuy soññ lépp loolu lislaam di di digal looy soññ ci jikko ju rafet lu mu lay dawloo loo lay loo lay génne ci jikko ju ñaaw moo xam moo xam ci wét yëpp nag bu dee sa diggante ak sa njaboot loolu la bëgg nga doxale ko bu dee yoolam yaxanal ngay liggéeyee dafa bëgg moom it nga doxee ko nga doxee ko noonu ci def makaarimul axlaaq bu dee ci wàllu doxalinu adduna ngay dox dafa bëgg nga def ci makaarimul axlaaq te sori sori ci masaawil axlaaq kon nag dañuy ballu ci diine adduna bu fekkoon ab goj la ab ab euh, la puri bi ne ci kaw nga xam ne ci goj bi wëndeelu mooy ay jikko bu doon ak garab la dàtt ba ak reen ya mooy ay jikko lépp loo xam ne lislaam nee na la defal aw yiwum seen ci kanam moo te bëgg nga jot ci moo tax lépp loo xam ne nee na la bul def tarxis aw ay woo xam ne mën nga caa tarxis moo ne ci sakkan mu ne bul dem te ak kàmma nga te yàlla gone noonu la kon nag na ngeen xam ne mixwaru sarri mooy li yàlla tere mixwarul xayri mooy li yàlla digg ku bëgg bëgg a mucc rek dugg ci ñu ko suñ tubaab daal misaale la xaasar bi daal da ngay fexe ba dugg ci biir rek li yàlla digg lépp ni ci biir xaasar bi boo fi nee nag dara du la ci fekk lekk la dara suñ bi boo ci nekkee dara du la ci fekk wala mu lekk la bukki bukki mënu fa kon nag yàlla nañ ci yàlla dimbali mais bu ko defee ngeen suñ subaan tënk na ko ci lu gàtt moom lu lii mu wax lu la baax ak lu bon bi maa ngi ko taxale ci ñëpp baax la mu ne suñ subaan nee na lu baax ak lu bon yow mën a xam ne lépp loo xam ne boo koy def ba nga ñu fekk la ba nga ñu nettali ko ba nga di ko bëgg ñu nga di ko waxtaane jàppal lu baax nga lépp loo xam ne bëggoo ko nekk bëggoo ko ko fekk bëggoo ko ko waxtaane bàyyi lu la ko suñ tubaab tënk kon na yonent bi nee na a ruuxal qudus nafasa fii ruuxi annahu lan lan lan tamoota nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi xusoo ma xalla wa dahoo ma xarum yonent bi nee na jaxase na ci sama xol sama xol nafas ay xalaata fii ruux fii ruux yi ay fii sawaaji xal bi yonent bi jaxase jibril ñëw na fi ruuxam ko si mooy mooy mooy jibril sama xaw wan na ma benn bakkan du faatu te li nga war a am ci wërsëg jutoo bi fii nag bu di wut dee leen wut ci ngeen di jéem a wut lu dagan te bàyyi lu araam loolu loolu yonent bi moo ko digal suñ tubaa daal ni daal ci daal ko ci moom lu yéen ci wax ak jur la wa'taziroo min allazi ayqantum bi kawnihi al-xaraama aw sanantum digal naa leen ngeen wattandiku lu leen wóor ne daa araam wala wóoru leen waaye jot ngeen kon ba mooy bay ñu suñ mu ne mu daal ñuy jàngal mu ne amma xaraamuha li yàlla araam fa tardun wa ada wa siddatun xirmaani aydan wa hijaab li yàlla araamal boo ci duggee lim lay wàññi mooy day tax ñu dàq la mbugal la day tax nga xañu nga xam ne da ngay def naan man a dama mel ni ku ëpp rek yaa yaa ko fekk sax yaa ne ci naqar yàlla wan jaabu day war a ciiraay sa diggante sa borom doo mën a am leer doo mën a xam dara ci yàlla wa subuhaati waa suñ subaa ne yi lëm ñi nga xam ne wóorul la ba xam daa araam daa lëm ci bu yow yooyu yëpp li muy jur mooy xitaagun ay yedd yàlla fil xiyaam ci bis dañ lay yedd bis wa zulumaatun ak lëndëm wa xisaamun ak xuloo ngay wax ne man dañ ma ko waxutoon nii dañ ma ko wax def nii uma laa moon ak yeddeel loolu loolu loolu te sëñ Tuubaa nee na fa kullu man xalaba maa lam yoxlaq saxiba soola daari bi dañ la képp koo xam bëgg ngaa am luñ la yàlla bindal da ngay sonn waaye doo ko am ku ne la la yàlla bindal dana dana yeneen bi wax na ci hadiis bi inna ahadakum yujmahu xalquhu fi batni ummihi arbahiina yawman su ma yëkkoon xalaxatan misla saalik su ma yëkkoon muddaxatan misla saalik suma yabxasullaahu malakan fa yu'maru bi arbaxa kalimatin wa yuqaalu lahu uktub xamalahu wa risqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw sahiidun suma yunfaqu fiihi muttafaqun alayhi yonent bi nee na yéen ñëpp koo xam ne eh, danañ eh, eh, leen ku ci am ñeent ci fan sa biiru ndey yàlla dana dajale bind bi ba bind bi tàmbali ñëw mu daal di ko ginnaaw ginnaaw loolu moo taate ñeent mu def ci lumbu dara da nga dajale julli bi daal ba nuru ba nuru bëgg bu boo xamee ne si nag am na ñeneen ñeent fukki mu def ko boo amaati yeneen ñeent fukki mu def ko dog daal ko defee dog ba mu ba mu nekk nekk jëm nag mu daal yebal malaat ne ko dénk naa wax ko ñeenti baat yi nee ko boo dee nga bindal nga bindal ko jëfam ak wërsëgam ak ko digam wala day texe loolu addis yëpp maa ñu ne nag léegi kon dinaa noonu gaa yi ne bu fekkee la demee kon ak li ñuy li ñuy ji ma mu ne i'maloo fa kullun muyassarun limaa la yàlla bind ci moom bu jugee jëm ci da kon nag yàlla na yàlla dimbali kon te xam ne kon yàlla dalaa bëgg a kon nag suñ tubaab ñu ñu jàngalee ci yàlla mooy walaw xalaa nafsika xalqahu tamax lam yaqdiru alayhi hawdu in mana bu mbindeef yëpp dajaloo ngir bëgg laa jëriñ te yàlla andi ci ñaan du am na bal law tamaalaw ala tahriiki li sarratin faqat xala tasriiki doona iradatin min arrahmaani la xaaje soo xam ne bi daa toon mbindeef yëpp buñ bëggoon a jël li gën a tuuti bët ci li bët mën a gis mooy sarratu mooy sama ne xam misaal sarratu yàlla yox naan ku ma ko defal ku ma ko defal ma fay la moo gën a tuuti ci li bët nit mën a gis suñ bi nee na lu toll noonee bu adduna bépp dajewoon ngir yëngal yàlla andi ji du dund mën a yëngal kon ñëpp nañ delluwaat ci jëm yàlla dañ xam ne nag li may jeexale mooy ñun ñëpp nii ñu delluwaat ci tuubal yàlla ndax waxtu wi daana fekk nawet bi sori taroon euh, taw bi mat matagul taxasanoon bis yi bañ ko ko waxee daa waxoon ne kenn daa ñëw ne ko man de wax dëgg yàlla doom damaa joxe la doom ji góor mu ne ko istafir rabba dee jublu yàlla kenn ki ñëwaat ne ko mu ne def ko ci waxtu basar daa daw mu ne ko istafir rabba dee jublu yàlla kenn ki ñëw ne ko suñ tool yi de daa eh, maral loo jafaat dafa am mu ne ko istafir rabba soxnaa nag ñu ngi toogal ne ko waaye yéen ñetti nit wax la seen soxla te bokkuñu soxla ku la wax nag ma ne ko alxuraan rek laa leen wax fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaara yursil as-samaa'a alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina bay ji lakum jannaatin wa ji lakum anhaara mooy kon nag yàlla na yàlla xeer ci ñu gën koo jéggal gën koo tuubal te xam lu ñu gisul ci lu baax rek ci ñun la waaye suñu borom moom yërëm nañu te lu ñuy jéggal lu ñuy wéyalee lu bari kon yàlla na jéggal suñu ñaaw tuuti yëpp bu ko defee nag lu ñuy ñaanal tëjee nag mooy ñaan bi rek ndax yonent bi daa wax ne bis bi ñu toll fan yi ñu toll bis bi yi ndax maa min ayaamin ahabba إلى الله العمل الصالح فيه فيهن من هذه الأيام يعني الخمس fukki fan yii topp topp amul benn bis boo xam ni jëfal ci yàlla lu baax gënal na ko nga jëfal ko ci fan yii ndax mooy wal fajri wala yaalin asrin ci la ne yonent bi nee na wal fajri wala yaalin asrin washafhi wal watri as watri mooy bisu arafa wa safi mooy bisu tey te yàlla dafay diw ci ñoom kon bis yu màgg la kon ñu ngi ciy ñaan yàlla defal Sénégal yii nihmatul imaan yi xéewalu ngëm yàlla ndax kat isal imaanu daaha fala amaan am mbiru buñ jëm eh, amaan mënu fa am kóolute mu defal ñu amaan yi soog a ñëw na xéewalu eh, amaan kóolute dal xel yàlla na ko yàlla def ci réew a wali mata salaam ak xéewalu jàmm jàmm nag suñ tubaab da ko firi doon daa am ni ko nit ñi ne ko mu ne mbaa jàmm ñu ne ko jàmm mu ne maa fa yéen ne ña ngi jàmm yàlla laa xam ngeen luy jàmm mooy fi ñu jàmmoo yàlla suñ dul jaamoo yàlla bu fa jàmm njëkk yëpp di fa wut wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu